bu dee dëgg la dina ma jaaxal football club canadien bi nga xam ne moo nekk nii nga xam ni ah, yebbeeku na démb ci match boo xam ne daanaka mbégte la ci àndal ak kontante goo xam ni ah, bënn na bët yi ci li nga xam ne mooy bi ni rëkk hymne nationalu ah, Canada bi nga xam ni moom lañ doon rëkk mu bënn ba tey jooy li gën a jaaxal ñëpp mooy football club boobu boo ngeen gis ko nii jàkkaarloog moom nga xam ni ab défenseur la woon ba nga xam ni ma nga ca Montréal Kamal nga xam ni Milner la tudd ñaar fukki at la yebbi ni moom la am ak juróom bu ngeen ko gisee noonu xolam sedd guy ci première participation boo xam ni am na ko ci coupe du monde bi nga xam ni am na mbégte boo xam ni daanaka lu tolloog ay milliards yoo xam ni ay spectateurs la nekkoon ci télévision yi nga xam ni ñoo wër àdduna wala ngal kàpp di ko seetaan xolam sedd guy euh, ngeen gis ko noonu image yaa ngoog yéen a ko mën a àtteel seen bopp Thibaut Courtois mooy meilleur gardien du monde guddi yi ñu toll euh, kum ko remplacé nag mooy ki nga xam ni mooy Édu Doudou Mendy meex fi mu toll nii euh, gone Real Madrid bi nga xam ni bu ngeen ko seetaanee ca équipe équipe Real Madrid lam fa doon yebbi ci ay arrêt yoo xam ne yu am solo day jeexaat gerte fa nga fore woon ab doom la continué ndax gone gi euh, bu ngeen ko gisee démb ci match bi nga yoo xam ne amul fenn moom ci ba Courtois moom la doon doxal ngeen gis ko ba ci penalty bi nga xam ne daanaka da koo lekk ngeen xool ko bu baax a baax image yaa ngoog mu nekk image yoo xam ne duy waxe kese ci ba Courtois bokk ci gardien yi nga xam ne daanaka ay déplacement ci li nga xam ni mooy terrain yi ak taxawaay ba muy taxaw am na ndimbalug suñu borom waaye tamit am na xam-xam boo xam ni ah, ah, mooy góolu mi di ko yebbi mu nekk gardien boo xam ne nag bu nu mën a bàyyi xel la nga xam ni mooy bile coupe du monde nga xam ne daanaka ay surprise dong la surprise yooyee nag ah, danañ ko gën a xaar tey ji nga xam ni ci match yi nga xam ni mi ngi jaaba jongee fële nga xam ne mooy Qatar match yoo xam ni yu bari la te am solo kon loolee luñ leen andiloon ci coupe ci ba Courtois mi nga xam ni ñu bàyyi loo ko xel bu baax a baax yeneen information ñu ngi koy togg léegi nii euh, bu ko defee ngeen mën ko seetaan jariñu ci te continuer abonné ci Aladji Malick TV tey it di leen ñaan YouTube ba tamit ma ngay toj ngeen jàll fa abone